waxtaan tuuti xam naa nag mere nga ma waaye nag euh, kër gi ñoo ko bokk te li la dal lépp sama ginnaaw yëg naa ko metti na ma lool lool lool lool waaye li nga wax Aïda ëpp na waroo ko ko woon wax sa jabar la loo mer mer mer waroon ngaa contrôler sa bopp jigéen kenn du ko xas waaye ba tey baax na waaye nag euh, bubakar def na jikko jaam def na jikko baadoo waaye nag bul am dara lu la naqari gis nga combat bii duma la ci seetaan dinaa ci ànd ak yow xeex cee xeex cee yow ba yow nga jotaat sa këyitu kër bu la ci dara naqari décidément jaan ji ñëw màtt ma ba pare nga topp ci watitu jaan bi di ko dàq sa wax ji feneen laa ko gënoon a séentoo feneen laa ko gënoon a te boo daan gis may def attention di waxtaan ak yow dama bëggoon nga sóoraale def attention ci Boubacar li ma doon wax ak la ma doon njort ak ba ñuy wax ngay dal sama kow yépp parce que dama xamoon ni Boubacar du nit ku baax Tuh nih. Merci. Sebenarnya masuk ada salah. Ya sejam. Iya masih. Ya. Alhamdulillah. Maimouna Diallo directeur. mooy directeur prestige Imo. ah d' accord. voilà Maimouna Diallo nekkoon jabar Boubacar Maimouna tey dama ànd ak Imo ñu ñëwoon seet Et bien, ça va Ça va bien. Ça va très bien. Bien. Mais, Sandy, y a où le monde dans cette tanque Avec l'eau, c'est avec Boubacar. Boubacar est où comme ni la ko monsieur wad waxe man monsieur ndjay la tuddu man may directeur prestige immo boubacar dafa ñewon suñu agence euh, pour location cœur pendant 6 mois ñu lieu que cœur mu defa 6 mois ñu tok 2 mois de plus Boubacar fayul gisuñu ko ñu koy relancé woo ba sonn eh, ni nga réagir nii sax ça se voit que jarul may dugg ci fond problème bi parce que que yëg nga li ci nekk yëpp paraît-il que un certain sec euh, góor a sec moom kër gi ba am na yeneen sax lu jot a xew suñu diggante ak góor a sec euh, samay tànk nag euh, li ko waral kii daf ma rapproché l'autre fois mu ne dafa gis changement ci man que dama gën a metti par rapport ak ni may liggéey ak ñoom

c'était la même personne muy Boubacar. mu mhm. ne yéen ñaar xamanté ngeen. Mhm. donc la ko la ko ne defal tout ma gis jabaram. Mhm. comme ça man ma laaj xeyna mom dina ma mën wax fan la Boubacar nek bëgg sauver sa der bëgg sauver sa deru doom kon tay bo ñëwee fi nan ma Boubacar li Boubacar la combat bi dina ko bokk ak yow ah mais c'est trop tard parce que li am am na ba pare. man Boubacar lo len ci wax di ngeen ma tooñ. ndax man Boubacar ni nga ko xoolee xam ko man tamit noonu laa ko xoolee xam ko jege gi ma ko jege yépp pour bëgg a sauver mariage am moo taxoon ma jege ko ndax man Boubacar xëy na bu bëgg dee am moo ma bëgg waaye man xooluma Boubacar gisuma Boubacar mariage am bee laa bañoon mu yàqu ndax may jàllo xale la boo ko xoolee sax xam ne xale la may jàllo attanul Boubacar ay mbiram il faut que rek ñun ñu nekk ci wetam war koo mën a sële waaye man bu dee bëgg-bëgg ban man nii bu dee bëgg rek sama xol ba seey na ca pàppaay Ayda sama xol bii bëgguma ci kenn kenn laa ca bëggoon te ma nga ne tëdd fële yàlla na suuf ayof ci kawam. monsieur Ndiaye dégg naa bu baax li nga wax ah man kay nekk doonatuma jabaram doonoon naa ko waaye nii nii moom doonatuma ko man waajooju man bëgguma sax tudd tudd turam ba ma ko gëjee dégg kenn xamul kañ la. xamaluma ko dara lima ko xamal as tuti sax musse wad mi motax ma xam ko moma indi fi ci kër gi moma wan jox lettre bu divorce bi nga xamne def nako ak man moma jox kayitu kër gi dama ni won sax kër gi duma ko laar sox soxlaatuma dara fàtte léppam mais mom mi mo insister nema nak bul baye kër gi na soko baye baye sa lo xamne ya ko mom tax ba nga dalé mu ñag na ma xamne nak wax deug la ndax lima daj ak lima muñ kër gi tanguma lu kër sax warna ka mëna am nak ndax sey bu rafet la ko sey mm-hmm. motax tax nak dama ni faax tok nek sama jam, nek sama salam. di xaar nak waju bax jo xamne ne bu ñëwee dina ma may jam ñu togando lu gis ñu gisandoo ko suma mën ta may jam porte baangi ni nga jàll dem naal fi ne mom lu may sunal ak lu may xatal waxatu ma ci dara xamaluma dara kooku xamaluma dara bëgguma sa tudd turam ah, xamna la da ngay jema laaj ki nga mu ak ah, xam nga àdduna lépp waxtaan la te li la dal dal ko daf ma dal parce que bon comme suñu client yi dañoo bari gis ko ci jamonoy changement ci moom ci laa ko laaj mu tegal ma un certain Boubacar ci laa man am na Boubacar bu ma doon liggéeyal fan yi ma génn benn photo par hasard woon ko ko mu ma kii laay set man ko kii man jabaram la ma sant pour ma am lu ma ko ko liggéeyal looloo waral tey jotaay bi ñu toog. Ah, moo taxoon nag raison de plus comme yaag Boubacar nee nga leen seq dara ko sax xool mais waroo woon di ko may accès tout le temps di la seet si ñi di ko gisee wu dëkkandoo yi di ko gisee nga dem ba di ci joteeg sa doom bon situation la mer na li ma wax bon voilà passé na quoi mais je reviens encore sur le cas de Boubacar Boubacar yàq na sa diggante ak May Diallo bu fekkoon May Diallo tax yow ngay jige Boubacar pour dimbali May Diallo ci séyam tey lu ko fi jar diggante bi yàqu na sa diggante ak May Diallo mooy loolu Boubacar mais man sax dama lay laaj ana Boubacar parce que yow euh, ñun bu ñu xamul fu Boubacar ne xëy na yow xam nga fi Boubacar nekk. May Diallo dafa di xale rek moo tax mu xalaatee noonu soo bëggee sa nit. nga xam ne sa nit kii fee mu nar a dugg ab kàmb la te bu ca duggee du génn yow mii xaritam bu fekkee sincère nga ca ànd ba ngay ànd yow balaa muy dugg ci kàmb ga danga koy dogaale. daan doon dañu doo gëstu lépp. mais boo toogee lu bari dina la ubb. te boo nekkee ci mbir bëgg cee dem dangay fexe ba li la wër nga nekk ci boo bàyyee li la wër li la wër wor la loolu waral suñu jotaay ñett ñi ñu nekk. docteur. en tant que directeur Prestige Imo Prestige Imo di entreprise bu am solo ci dëkk bi ñëpp xam nañ ci jub ci liggéey ci teg lépp muy jaar ci yoon xëy na am na loo xam bu la dalee sa kaw bon dina la touché touché ñun ñi fay liggéey rawatina sax man parce que man maa ngi doon ci suuf te boobu xaw ma ñu hmm. demee ak yow. mais lépp dogguma la sax dogguma la euh, monsieur Wade je pense que Boubacar ci lépp lu mu dugg day am. ay malentendu ay lënd lënd lendu wax hmm. ji hmm. da ci bëri. parce que ma ngi dégg soxna si dang ko indil ay papier. Hmm. kër manam fi ñu nekk ni te man Boubacar xam nga ne Boubacar lay wër. donc daf may jaaxal. ndax joxe ma benn kayitu bu bu bu turu Boubacar nekk. ndax mënuma di wër Boubacar. di la jox papier Boubacar. loolu mu démé non wa loolu docteur. Boubacar la seqaloon mais Boubacar bi ma séxal liñ séq. du woon ci turam ci turu Maimouna Diallo la. kër kër bi ma joxee te mu jaar ci liggéey liggéeykaay ba. jaar ci say loxo ñëwaat ci man turu Maimouna Diallo la nekk. Maimouna Diallo bi nekk Maimouna Diallo bi nekk suñuy papier. moo nekk nii kooku këram en location la nekkoon. Mhm. mooy dossier bi nga doon suivre. Mhm. waaw xam nga kër gi en location mhm. ñëwaat tey. locataire genn moom mu ñëw jël kërëm d'accord loolu waral mbir mi kon daal si gàttal daal Boubacar daal moom triangle am la def jaar fii dugal tur fii ba nga xamante ne daal day jéem a lëndëmal suñu xel yi quoi bien sûr yow nga ne yaay jabaram xamoo fan la Boubacar nekk yow ma jabaram moom laa woon jabaram laa woon mais nii nii xamaluma ko dara li ma ci xam sax ak lu néew man la monsieur mi moo ma xam ko si jege gi ma jege woon Boubacar yépp pour xam kan mooy Boubacar ak Boubacar lan lay def ak Boubacar ci lan lay dugg ak Boubacar lu mu japp jabaram ji di ko maltraité may da comprendre rek ndax xalé la te dafa bëgg way yo bo xolé Boubacar xol ma ak xam gi ma xam xam nga ne man sama bëtt bi xolu sax ku raw Boubacar faalew ma sax Boubacar waye nak baxna yalla baxna mais da nga warona gëna def attention nag parce que jigé bi nak dafa muju ëpp d'ailleurs sa digënté ak may jàllo tey mi ngi xajam te loolu lépp bëgg a jigee xaw ma bëgg a defar say moom moo ko yàq mais loolu tax ma la doon wax pour nga def attention tey dëkkandoo yi yow am na beneen bët bu lay xoole ñii naan dangay ngay seq ak danga nga seq ak Boubacar ñi naan seq ak Boubacar bref yooyu yëpp daal lu si mënti am tey li am am na Boubacar xaw ma sa nit la xaw ma la sa nit gis nga lim ma def commentaire yeeg balu beeg yi yëpp bon à la limite c'est un peu trop gis nga waxu Boubacar laa bëgg nga dindi ko teg ko fee. ñaa ngi dégg te ñu xool ñun lan mooy solution bi ñu jéem a xool ñun nu ñuy def ba jotaat ci kër gi wala ni ñuy def ba ba Boubacar mi nga xamante ni moo def lii sax ñu teg ko bët affaire yooyu loolooy wax ci ndax du ñu toog fi naan Boubacar jàppal bàyyil bàyyil amul benn sens. li ma la ci mën a xamal de mooy lenn Boubacar laal la laalaake parce que du question deux mois yim ñu yoreel moo ñu tax a jóg parce que man mun naa ko fay. te du ma wàññi dara. Mm-hmm. mais entreprise. Mm-hmm. boo xam ne ñëpp a ko xam. Mm-hmm. day am image boo xam ne da koy sàmm. bien te ñun dañu tënku ci ay valeurs. ak ay principes. le fait mu ñëw. luye si ñun loo xamante nit da ko yónnee woon xaalis rek. ñu koy liir un peu ci presse bi. loolu baaxul ci suñu image entreprise. te nag laal na laalaake man duma ko may dara. Boubacar fu mu nekk fii ci Sénégal mhm. man dinaa ko teg bët mhm. te il sera sanctionné je ferai en sorte mhm. que moom ñu sanctionné ko parce que duma ko ndaw ci dëkk bi te tamit dëkk bi dafa nekk dëkkum loi dafa am loi loolu nag maa ngi la koy dénk lenn dalaa lay ñaan dañ monsieur Ndiaye bii boo nga jóg sa yaram ndax kuy mystique ci àddina moom ngay jàppale ndax li def yëpp dafa bari xaju fi koku limu def bari na ñukoy wër bari na mais lu mu def mën na ci genn kon amna lu tax te man may soxnam jégé won nako ko koku misti mystique nako lu ne na nga gaaw sa bop nak bala mo tecc sa gémmiñ jaxasi sa xel. soxna si man ragaluma mystique bo déggé ni may laké wala sax nga xamné doobu doomu la kon nak neex na. lenn rek a ñaaw moy li mu nekk doon sama jam. Mhm. te entre pleuk ak amna yo xamné xéju ci mais mystique boobu bu ko dirigé ci man. fa lay teeree. boo paree looy lijjanti ci Boubacar nga lijjanti ko te duma la ci seetaan nag duma la ci seetaan benn yoon dinaa ci jàpp ba nga xam ne jàpp naa ci. Ah, baax na ak lu si mënti am man maa ngi ci yoon wi yow damay dab rek ci yoon wi man ngemb naa ba pare ngemb naa bu yàgg ah boo nee nag da ñëw jàppale ma ci combat bi waaw merci sama goro nga sama lépp mais de toutes les façons man moom.

korek lali Raga ragaluma lool maymuna seede yàlla voilà xamul ma la malu dolli àdduna bu nekkee ci yoonu njub bul xool nit ñi def bul xool lu nit ñi di galgale dañu enterprise, entreprise dama la koy répété la prestige imo ñëpp xam leen ci njub musul ñëw taxaw leen ci directeur jël lepp jaarale ko ci yoon kon mystique bobu ngay wax jarul ragal ah. àdduna bo toñu jarul ragal déedéet waye dafa am doomu adama yo xamne ñu ngi dox ci suuf waye daanaka gëmuñu yalla ñom li seen yëpp pour ñom mystique la xam nga lolu aussi rek moy lima la wax rek bo tooñul jarul ragal bo yeneewul ñepp jam yow do am jam bo yene ñepp jam yëpp mëna ñoo bañ am jàmm yow di nga am jam directeur ak entreprise bi bi mu yor dañoo yene ñepp jam ba ku ñëw lépp loo fay dañ la traité sa dossier gérer la ba lépp jaar ci yoon. kon jarul ñuy en tout cas ñu ngi lay jaajëfal. ci recevoir bi ñu recevoir. Euh, maa ngi lay masaw également ci lu jot a xew ndax sa ndaxte li Boubacar def yépp man fu ma mën a jaar ci trace Boubacar rek dama fay fekk ay victimes ah, man nag du ma nangu doon victime Boubacar. Hmm, hmm, hmm. Boubacar dinaa ko sanctionné ba mu xam ne fi mu laal. du foofu. Mhm. jërëjëf mu ngi dem merci beaucoup Maïmouna. Hmm. su ngeen ko jàppee de yeboo sax ngeen dugal ko ci gën a dëbb ko man sama yoon nekkul ci moom. rey leen ko jam lu leen def leen ko ko nit ku mel nii man mosuma koo gis lii mënut a simple am na lu am na lu mu mbubboo yu tang bay beug de ma nek fi sank ba legui di bay genno sax ni ma grand indi ileer bi sax ma awula jek jek gen nan ma mangi dem fi mais bay fils sa frère la sama rakk nga yaa ngi dégg mais ay affaire yi nga top ni affaireu ni affaire yi day wessu de man li ngay def nii muy affaire sañse yi nga tol top ni man bamay don boy tol ni yow ma dan sama bop ah di jënd sama bopp sañse mais bu ñu waxee nga topp ay affaire ASC ay ASC ASC ASC day wees de rakk bay say weewu tànk xam nga yow sama grand ga ñu bokk ndey ak baay waaw yàlla boole ñu mais erreur boobu ci yow la parce que yow yaa ngi say activité yow yaa ngi say business nekk ci say projet mais boole woo ma ci man même bu ma des ak say yow war a mën a teg ci accès ne ma rakk bàyyil ci li nga ne génnal ci li nga ne nga def lii mais samay business mënu yow lan nga gëm sañse jaay tar affaire ay ASC yoy non dama la wax ben affaire de rak tu es mon frère Lol aduna yëpp xam nañ ko mënuma la bañ parce que ñoo bokku nday bokku bay pa bi nek fi mer bi nek fi mer dama lay wax ben affaire ñom seen walu wéne ñun ñoo ki dess te man maangi sama yoonu bop Ya ma jaaxal daru science nak teud sa bir nek xalaat li ma la wax fere ay sey genn fi ñu naan mais grand bi dafa mëna a sañse wala ngay génn dugg kër jàmbur li mais gaay loolu mën mais loolu lepp ñak activité la rek. fi man ak yow do nga fi nek tay ji war naa mën a lu bari wala ne la rek am teel mais dama la jéppi motax du mal la defal loolu parce que yi nga gëm ak yi ma gëm bokku man fayet la gëm ñak def sama bop c'est pas normal d' accord grand li nga wax dinaa ci bàyyi xel yoon bi nga bëgg ma jaar ko dinaa fa jaar. mais loolu laa bëgg. waaw mais dafa am leneen lu metti dafa metti kër kër Père waaw dem di set dom. waaw dugg fa di waxtaan ak doomam pour récupérer ko ñu ànd stade. waaw parce que ASC mënu mënuñ football. non bàyyil waxi ASC. waaw déglu ma ma ñëw bi may waxtaan ak doomam noonu juste mu génne ci salle bi ñëw mais taxaw di wax taxaw ne dara xewul man ma jàpp ni dara du xew. waaw mu jublu penku ne ma jugal ma jug ñu taxaw jublu penku waaw mu tala ay loxom di ñaan di ñaan di ñaan yi ñaan ji ma ngi nan amin mais bi mu geesoo ne yalla dimbal ma nga reyal ma boy bi mu ne man damay ray quoi na yalla ray ma